Mm. alors euh, réew mi itam euh, dundu na lu mës a dund mooy assemblée nationale buñ tas une première dans l'histoire du Sénégal euh, président de la République joxe ay motifs yu mu ne moo waral mu def ko keroog 12 septembre te ñu waroon xëy le 13 am déclaration de politique générale xam fan la ñu jëmee Sénégal lan mooy sa commentaire ci. réew mi koy fàttali li mu dund bëkk démb. Mm. ci marax pour la première fois. ab président de la République jël parole. di wax ak askan bi te lam leen di wax dara du ci dëgg. waaw ah waay. absolument. motif yi mu joxe dara. dama ne prix li dal Sénégal keroog Senghor nekk na ba de jóge fi deful loolu Abdoulaye Wade Abdou Diouf nekk na ba jóge fi deful loolu. Macky Sall ant Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall Bassirou Diomaye bi mooy président bi njëkk seen jàkkaarloog Sénégal def adresse à la nation te waxul dëgg. fan la waxulee dëgg. moo tax gis moom joxe na ñetti motif. Suzanne Camara dañ ah. la mu la mu jiiñoon def na ko keroog bi muy def dëgg la la ko expliqué. danaa la ko expliquer la mu def la mu nee Bassirou Diomaye Faye du wax dëgg bañ jàpp hmm. Bassirou Diomaye Faye keroog bi muy def euh, discours à la nation waxu dëgg je vais vous dire pourquoi man la waxu dëgg Fatou hmm. xam nga man nag tuuti lu mu tuuti am naa yu ma xam waaw li bi muy wutal layu bi sudur bi foofu la jëkk a daanoo parce que bi sudur assemblée nationale président soxlawul wenn lay yoon sañ sañ bu ko constitution bi may conditions yi ñeent la na assemblée bi am ñaari at bala nga ko def na nga ko wax premier ministre nanga ko wax président assemblée nationale boo ko tasee nanga nga wax bis bu ñuy wote ñeenti condition rek la ko constitution posé wutu ko rek di ko wutalu lay cest le fait que mu ko wutalu lay rek ma ngay wax ma ngay wax lu du dëgg parce que wuru ko wutalu lay ndax aw lay amu ci sañ-sañu constitution kenn du ko wutalu lay te sañ na ko bu amee ñaari at sañ ko boo di lañ ko wax rek mooy na ko yëgal premier ministre na ko yëgal président assemblée nationale te bu ko defee na na wax bi sàng ban bis la ñuy wote lu mu ci wutal alors malheureusement lay yi mu indi wenn jiwu ci lay yëpp benn bi ñetti lay yi benn du ci dëgg. bi ci njëkk mooy débat d'orientation budgétaire bi. dama def ne dañu assemblée daa deful débat d'orientation budgétaire. waaw Bassirou Faye Diomaye Faye kañ la décret euh, euh, convocation session extraordinaire bi kañ la ko kañ la ko signé le 4 septembre la ko signé bii. débat d'orientation budgétaire mi ngi waroon am le 29 juin kon moom bi muy woote pour ñu def session extraordinaire war a defaale DPG moom xamoon nañ loolu am na ba pare dëgg loolu. waaw mais loolu daf ko jëloon tey. daf moom xam nga moom ginnaaw ginnaaw dafa li tax na mu dissoudre ko bokk na ci li tax mu dissoudre ko loolu ba mu koy xam la 29 juin lu ko xam alors que décret bi mi ngi ko signé le 4 le 4 septembre woote session bi le 5 kon lay jubut. bi ci des mais loolu loolu lu mu mere assemblée la. mais non mais tax xam nga président bi xam nga loolu mooy yëfu xale quoi. Hmm. ay président buy mer quoi président du mer. d'abord dama naa wax ne li mu wax ne moom moo tax mu de mu def ko du dëgg parce que loolu mi ngi am le 29 juin te kon bëkk dem bi muy def déclaration bi boobu la ci door a mel entre temps moom su ñu nee décret ne bi ne DPG dina am entre le 5 et le le le le le le 20 le 20 septembre kon lay wi moom du lay wu jub. mu teg ci ne assemblée dafa rejeter la révision de la constitution waaye soxna si Bassirou Diomaye Faye ni mu sañ ni mu sañ wootee session extraordinaire mais noonu la assemblée sañ a rejeter euh, révision projet de loi loolu droit constitution constitution moo ko jox assemblée nationale cest à moom war naa sañ a mere assemblée nationale ci loo xam ne constitution moo ko may sëñ bi loolu loolu waxi dof la mais beneen bi ci des moo gën a garaaw layu mujj moo gën a garaaw hmm. boobu moom bi mu ko normalement Bassirou Diomaye nii war na fekk ñu daane ko ah absolument ndax lan nee na dafa dem ba usurper les prérogatives constitutionnelles du président la de fixer pour fixer la de la déclaration de politique générale Bassirou Diomaye Faye waxul dëgg constitution bi joxu ko benn cër mu fixer date de déclaration de politique générale hmm. waxul dëgg kan ma war a fixé demal nga liiri article cinquante kan ma a de la constitution. lan la wax dama koy liir wolof lekk ko dégg ko français dégguma alpulaar ndax say yow alpulaar dégguma séeréer. <laughs> man séeréer la sa bopp séeréer la waaye nag dégg naa. xanaa ñëwoo alpulaar yee ñu jàppale. ah non daal ko nag ñu lan la constitution bi article cinquante cinq ci DPG dama lay liir article bi ci wax. Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à vote de confiance. En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membre de l'Assemblée nationale. Fatou. Hmm. fii dégg nga fi président la République. lan la article 7 daf ne bu ñu premier bu ñu la nommé da ngay def sa déclaration politique générale maanaam da ngay dem Assemblée nationale nga wax fa li nga fi nga jëmee réew mi. nee na wax jooju boo ko defee ba noppi day am débat maanaam day jox député yi seen parole ñu wax bu ñu noppee nga tontu leen bu la neexee nag nga laaj député yi ndax lim li ma leen wax doy na leen ñu wote buñ ko watee nag pour mu jàll wala pour mu jàll bu ñu jàll majorité absolue rek maanaam bu dee bu dee bu dee assemblée bi 165 députés bu ñëpp ñëwee soo amee 83 day day jàll. lii de lañuy wax fii dégg nga pour pour turu président de la République kon lim ne assemblée dafa jël dafa usurper ay. fonction ay ah, prérogative du président Bassirou Diomaye Faye waxu dëgg mais li garaaw xaar xam mm. li garaaw Bassirou Diomaye Faye magut ci réew mi mu ñemee toog jàkkaarloog Sénégalais yi ñépp di ko dégg mu di leen wax lu dul dëkk Bassirou Diomaye Faye daa war a jàpp ne ñi doon wax ñi ko doon seetaan yaayam ci la bokk ak baayam te war na leen a jomb wax lu dul dëkk Sénégalais yi ko seetaan ñi ko fal war na leen jomba wax lu dul dëgg. waaw mais. xaaral ma rek. assemblée nationale bi nekk deuxième institution de la république du Sénégal war na leen a jomba duural lu dul dëgg te fii dafa duural assemblée nationale lu dul dëgg. kon moom li tax ñu jàpp ba euh, Suzanne Mohamed Suzanne Camara def na ko kon dañoo war a bàyyi Suzanne Camara parce que président la plus te ne waxoon naa la ko fii bi mu mujjee. yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf jullit du fen te yaakaar naa jullit la bi des di wax lu amut maanaam wax loo narut parce que Bassirou Diomaye dafa si signé décret ne DPG day am. le 13 wu date bind lettre assemblée nationale ne leen DPG bi le 13 lañ koy def alors que booba 13 bi moom dugal na galgal pour mën koo dissoudre amal le 12. kon wax na lum narut Bassirou Diomaye Faye suñ borom jëppi na ko ndax yàlla moo ne kuy wax loo narut da lay jëppi. ay bokkam war nañ ko jéppi ay wajuram ay ñim bokkal parti sénégalais buy nite bu ne war nga ko jëppi parce que li mu def kenn waru ko defum réew. mais nee na ba pare da waat ga mu waatoon ne dana dana maanaam dana respecter constitution bi Bassirou Diomaye Faye war na constitution bi. anum ah, ko waree tas bi sañ sañam la. parce que non non non non ah, laa déclaration de politique générale li ci constitution bi wax tuddul fi benn yoon président la république. ki fi tudd mooy premier ministre moom moo war a loolu ci règlement intérieur bi la dem la nekk assemblée moom moo war a wax assemblée dinaa ñëw bu des bala leen bu leen ko wax naan war naa des lu mu tuut tuut juróom-ñett juróom-ñetti fan pour assemblée waajal boppam defar barab ba nettoyer ko peinture drapeau defar drapeau yu bees wut tapis rouge invité ambassadeurs yi corps diplomatique bi ak les partenaires financiers développement ak ak privé yi ci réew mi loolu la huit jours yi di jëriñ hmm. Bassirou Diomaye li mu wax fii ne l'assemblée a usurpé ses fonctions ses prérogatives constitutionnelles waxu dëgg ak président la war naa jomb def lii mu def gis nga lii bu amoon États-Unis balaa bëtt si président bi daa am meneen réew mu amoon di réew nit ay nit dëkk fa ay nit ñu baax président bi du ko nettali waaye nag sénégalais moom day réew moo xam ne nit ñi ku leen di fen moo leen fen wu leen neex moo leen gën a ku leen di wax dëgg réew mi bu ñu doon nitu nit ñu am dëgg nitu dëgg lii Bassirou Diomaye bu ko defee dutu ko dolli du ko ñeme waaye nag Sénégal dañoo bëgg fen li yonent bi sallallahu alayhi wasallam dox jullit du fen quatre-vingt-quinze pour cent yi musulman yi Sénégal gëm xëy na dégg nañ koy waaye gëmuñu ko hmm. parce que li mu def sa très grave Fatou c'est scandale et li ma gën a metti dangay gis nit ñoo xam ne man d'accord naa nga far ak nit Fatou mais bul far ak nit mukk ba di ko faral ciy fen et malheureusement da gis ay boroomi xam-xam di ko jéem a défendre et à la limite ces gens pour la République du et c'est des hommes politiques en général boroom xam-xam yori parti waaye nag Sénégal ginnaaw politique du dee nee nañ politique demul àllaaxira ah, kon mën na cee ci mën na cee fenn voilà. alors tas gi ñu bëri dañ ci gis ne euh, li ko laytaayal dëgg dëgg dëgg mooy bañ amal déclaration de politique général bi. d'abord pour yow loolu la wala. amul yeneen d'abord de euh, session extraordinaire bi rek la ko taxoon a jóg ñaari yëf rek la woon mooy bañ DPG ak bañ motion de gis nga bi ma liiree décret bi damaa woo président assemblée nationale mën naa ko wax fii c'est pas un secret ne ko président li ne li tax décret bi jóg li tax session extraordinaire Bassirou Diomaye Faye woote ko nekkul ci décret bi li tax mu jóg ko mooy un dafa bëgg Ousmane Sonko du def déclaration de politique générale deux dafa bëgg duñ ko motion de censure c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye pour tab bànneexu Ousmane Sonko jaral na ko mu war as askan wi ko fal war constitution bi war waatam moo tax dañu war a sappi d'ailleurs affaire ni ñuy waate parce que jàpp naa ne bu giñoon giñu séréer ne sama géñoo ko bàyyi du def li mu def parce que xëy na li mu giñ ci français moo tax gëmu ko kon DP motion de kii bi session extra bi la ko tax nu jóg rek mooy empêcher dépêcher maintenant li boo li nga li nga wax ni yaa ma gën a xam xam nga da ngay laaju da xam nga laaj ak laaju du benn xam nga laaj mooy laaj loo loo bëgg a xam loo xamagut laaju mooy xam dara ba noppi di ko laaj yow da nga may laaju fi yow xam nga ne koo xam ne da ngaa bindub ne non no affaire bu leen ko def euh, DPG bu leen ko def le 11 indi leen ko le 13 alors que bi ngay wax la 13 booba yaa ngi préparé pour dissoudre lu ko dissou dissoudre ko le le 12 loolu c'est un crime yow jullit nga bu neex wax ci jullit nga faatu ak bëy sax boo koy boo koy boo koy boo ko bëggee jàpp bu ko naxee lékkee tu kese mm-hmm. lékkee da nga ciy def dund bëy wi di ci lekk nga jàpp ko. waaye nag Pastef yàgg na ñoon naxe Sénégalais yi legetu kese digg nañ fi projet ni 4000 cadres ñoo ko bind juróom ñeenti junni borom xam-xam dara du ci dëgg dëgg nañ ñu fi ne bu ñu faloo dañuy dañ appel à candidature la ñuy def di nomination dara du ci dëgg digg nañ ñu fi ne président la bu ñu faloo day génn conseil supérieur la magistrature dara du ci dëgg Pastef ñoo nawlawul waa Sénégal waaye nag Sénégal ñoo neex a nawloo di parce que ku leen di fen fen wu leen neex mu leen gën a ku leen di wax wax dëgg moo tax gisaguñ dara bala ñoo bala ñoo tàggu Pastef da lu dal Sénégal li dal Sénégal dana ëpp li mi ne moo nuy dal. déet waay maa la wax loolu. alors da ci jàpp nekkoon li ñu doon wax ne Ousmane Sonko mooy jiite réew mi dëgg la. Ah, Bassirou ko Sonko wax def ci grand def son théâtre ci grand la ko waxoon ne dama ne sañ ngund dama ne ne del tukki te yor affaire armée te bàyyi ma li des ci réew mi benn moo ko wax Ousmane Sonko ko wax ay nit yu muy waxal ne leen moom tout tourne autour de lui mais nag loolu c'est normal. c'est man ñi muy <laughs> ñi muy def problème mooy mu jaaxal mais Bassirou Diomaye Faye du woon candidat c'est un candidat prête-nom candidat apparent mais le candidat réel du woon moom parce que moo tax ñu bind Bassirou Diomaye mooy Sonko c'est-à-dire Bassirou Diomaye ñemewul sax nekk candidat ci turu boppam maintenant nag li am solo mais Sonko nag mooy leaderu Pastef dafa nag xaar ma li am solo du loolu mm. waxuma loolu de c'est-à-dire Pastef dañ doon naxanteeg Sénégalais yi pour am candidat mais lim jur moo bon mooy Sénégal amul président fi mu toll. waaw ah Jomaay lan la ko. du président amul kàddu amul signature lu mu wax mën na ca génn gis nga Jomaay li mu def nii. Hmm. jëkkër ji jaba jëkkër ju ko defoon sa jabar nga wàcc nga ne ko may ko may ma baat li def Sénégal yi keroog ku ko sa jabar ku ko sa ku ko sa jëkkër def nga ne ko may ma baat ku ko sa jabar def nga ne ko dama lay may baat. ndax kóolute dootu fa am. kat Diomaye amul kaddu amul signature et c'est très grave maintenant nag li grave mooy li ñuy wax ne euh, parce que c'est quoi c'est Alioune Tine qui le dit d'ailleurs qui parle de Diomaye c'est Sonko qui gouverne en réalité qu'un premier ministre gouverne c'est ayut mais bu président bu bu bu euh, premier ministre di gouverner le président di présider c'est que Sénégal li ko dal mooy le président ne préside pas et le premier ministre gouverne hmm. maintenant loolu dafa garaaw moo tax man keroog dama doon man li ma bëgg mooy Bassirou Diomaye Faye na démissionner. démissionner mel na mi. démissionner parce que élection anticipée yi ñu def du élection législative élection présidentielle la ñu war def anticipée bu Sénégalais yi bëggee Sonko jox ko réew mi mais munoo nekk palais ñu jox la palais c'est le plus mooy kër gi gën a rëy ci Sénégal en tout cas Dakar parce que xëy na boo demee Touba mën ngaa gis kër yu ko gën a rëy ko <laughs> waaye c'est dakaar moom palais mooy kër gi ci gën a rëy ñu jox lay policier jox lay gendarme jox la armée jox la police yore la sa ñaari jabar te amoo benn njariñ sëñ a war parce que Sénégal moo mënta am président bu doon booyu premier ministre or Bassirou Diomaye Faye lépp lu Sonko wax loola am na lu Bassirou Diomaye Faye amut lu mu wax amut mais buñ ñu organiser élection anti bu fekkee Sénégal yi nag Sonko lañ a jox rek mu jox ko mais doo toog jàkkaarloo nit ñi say moroom yi bàyyi say morom yi ndey say morom say morom yi doom nga dina wax lu dëgg c'est-à-dire que Bassirou Diomaye lan la mën a tee wax nit mu gëm ko kuy signé di ko dindi moo tax sax léegi xale yi commencé wax bu ma jamaay <laughs> xam nga bu ma jamaay yaa ñaar yëpp lay teg xam nga lu muy teg mooy bu ma yoole bu ma yoole ak bu bu bu ma digloo du def alors tas loolu mooy bu ma jumaay. <laughs> tas c'est un nouveau c'est un élément c'est un nouveau langage. Euh, <laughs> yaa ko génne non non dama ko dama ko lire mooy bu ma jumaay. man maa ngi koy soog a dégg mooy bul ma yoole. bul ma bul ma bul ma bul ma signeel loo dul def xam nga li ndey am na benn waykat bu tudd signature signature day sekk moom daa wax ku am signature la doon way am na war nañu war nañoo way way ku amul signature Bassirou Diomaye Faye moom amul signature amatul baat amatul signature te nag gis nga baat kilifa ñaa benn yëf rek am ci kër mooy kàddoom kilifa bu demee ba amatul kàddu amatul kilifa dee naa c'est-à-dire le Sénégal n'a plus de président de la République. Depuis le C'est faux président. Alors, qui doit démissionner ñu organiser l'élection anticipée. tas Assemblée nationale te dafa guñu